émission Ndox Daje lépp luy politique ci sport wala luy soxal doomu demal rajo xalimay Dakar TV man Maodo Malik Thiandoum journaliste sportif nek ci télévision bu ñuy wax Sen TV maa ngi déglu radio Khalifa FM. ak Seydina Seck mi Sénégal adduna bi déglu leen seen émission. jërëjëf badu manja yéen tam mbokk yi jërë ngeen jëf Seydina sek moo am mbégte ak bànneex dellu si waat ak yéen fii seen émission dox daje ni ñu ko baaxoo di def vendredi bu jot ci waxtu bi fii ci rajo Xalima ànd sek rajo Safir FM 96 Dakar ngeen mën ko fa déglu si 15h jàpp 16h tey ma fas yéene ñëw ak yéen ci wàllum lamb ndax xam ngeen émission dox daje moom du rek ci politique lay yëngu ci dina wax ci sport dina wax ci culture dina wax ci économique dina wax ci lépp gannaaw ba nag lu ay di njàmbat ñëpp xam nañu jamono ji lamb lañu wara mëna waxtané rawatina violence bi af bu fi am ak sorte bi nga xamanteni ni Selbé def ko fi jéem waxtan tamit si perspective lamb ndax lamb jamono seetlu nañu jamono ji si yaqku la jëm loolu yëpp na buñ ci si bëggee waxtaan am nañ suñuy gan bi nga xamanteni ni ñëwoon na fi ñëwaat sax lañuy wax muy malik tiandoum di journaliste nekk ca Sen TV nekk koo xamanteni pertinence am gëm lu wax xam lu wax jamono ji mën wax ni wax lamb te tudduñu ko si kooku bu ñu ko amee nag dinañu jàngat ci lu bari dinu jàngat ak moom jafe-jafe yu am ci làmb saafara yi ak téere bi nga xamante ni kii di Cheikh Yérim Seck bind na ko ana nu mu ko gisee mbokk yi loolu moo nar a def fas yéene nekk suñuy waxtaan ak Malick Thiandoum tey Malick ñi ngi lay nuyu di la dalal fii si rajo Xalima may fàttali tamit

waaye laata loolu dañuy ñëw ci affiche bi nga xamante ne moo am le 21 parce que waxtaan noonu lañ bëgg mu tëddee dina ñëw ci affiche le 21 bi après dina ñëw ci perspective lamb parce que fi mu nekk nii euh, jaaxal na ñëpp nit ñi bëri ñi ngi dégg ay combat yu bëri yu taxaw mais ba léegi xamaguñ ay date yi exactement kañ la euh, dina Malick affiche bi nga xamante ne ñëw na muy guy gi ak mm. Zos ñaari mbër yëpp mm. fekkee nga seen entraînement seen open press yaa ngi fa woon état de mm. forme ñaari mbër yi muy guy gi ak Zos ba noppi. waaw jërëjëf euh, guy bi ak Zoss fi mu toll nii euh, lu ñu mën a wax rek mooy ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci état de forme bu doy waar hmm. ndaxte combat bi ñu lay faral di wax combat la bu nga xamante ni askan bi moom moo ko bëgg waaye làmb ji moom moo dox ba boole leen hmm. ñoom ñaar tamit nekk ñaari mbir yi nga xam ni kenn ku ci nekk da nga xiif sa morom donc euh, Dias boo ko waxee mu ne guy gi dama koo daan muy salteel kon dama ko bëgg a daanaat pour leeral ni man maa ko mën. Hmm. guy gi boo ko waxee mu ne Zos ngemb la mu takkoon na mu ko takkee woon baaxul booba dafa rëccoon waaye bi yoon bu ma ko jàppee du doy. Hmm. ndax dama am gàkk-gàkk bu nekk sama carrière sama diggante ak moom ma bëgg ko effacer. Hmm. donc mu nekk euh, vraiment lu nga xamante ni nii euh, lu lu enjeu bu mag a mag la Zos. ba mu daanee euh, guy qui ba la qui la qui mm. euh, la euh, yeneen mbir yu nga xamante ni nii ay xale lañu yu xewoon ci jamono ñëpp yaakaaroon ni mm. euh, ku ci mel ni Tidiane Faye ñu yaakaaroon ni mm. ñooñu ñëw mën Zoss waaye bii gi ba ko Zoss daanee ba léegi tamit déggul bu ñëw boobu ba léegi wax dëgg yàlla def na carrière bu am solo euh, bëre ci ak Ama Baldé daan ko jële bi nga xamante ni ba léegi dafa yéen gaañi mm. mu nekk nag euh, tey làmb dem ba boole leen waaye daal ni ma leen gisee ci gàttal kenn ku ci nekk fonk nga bët bi entraînement nga guigui da demoon na États-Unis yok na poids yok na masse musculaire yok na yi tamit li nga xamné euh, mom moy mooy waye waaye Zeus dem na moom tamit euh, États-Unis mom tamit liggéey fa liggéey bi nga xamante boko boo ko gisee macha allah xam ne yaramam benn benn benn benn problème amu ci kon ñom ñaar ñepp ñu ngi ci état de forme bu doy war motax combat la bu nga xamante ni du mëna yomb ndax li koy wane rek ci bu naree neex bu baxé xey li xew ci bu boba ak légui ciow lu fi jóg fu ñu dajee mu mel ni mal ni mm. fu ñu daje mu mel ni moo jumkaan yi looloo lay wan ne bu ñu tëjee barrière mm. ba àll bi ñu far combat boobu ci lay baax lay doon du am ruq bu sedd <laughs> du am ruq bu sedd combat boobu loolu euh, analyste bi moo ko wax muy Malick Thiandoum mais Malick nit ñi lu jaaxal nañu tamit mooy état de mooy mooy mooy mooy euh, zos nu mu nu mu toll euh, guy gi guy gi nu mu toll ñu bëri naan mm. affaire dopage ñi naan leex bi est-ce que tey jii yéen yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk di war di di di xool làmb tey jii est-ce que ngeen ngeen teel a signalé loolu bàyyi ba si biir

waaw xam nga dopage moom bu koy wax ci milieu làmb dafa nekk lu am lu réel la euh, te bëri na bëri nga xam ne tey mën nañu wax ne soixante dix pour cent wala soixante quinze pour cent bëri ñu ngi jëfandikoo ay produit yu nga xam ne bu ñu leen defoon contrôle anti dopage dina bokk ci produit yu ñuy tere ku ko jël ndax dafa am lu nga xamante ni nii euh, ci gis-gis euh, jaaduwul mm. waaye tamit xel nanguwu ko mm. nga toll ni Malick Thiandoum mm. dem États-Unis ñetti weer ñëw tol tol tol tol nu la neex loolu également lu lu doy waar la boo xoolee changement morphologique di am ci yaram yaramu guy gi xaw na xaw na tey xel parce que bu doon ne rek moom moo la jox tey euh, doole du génn ci ay lex doole ci ay muscle lay génn muscle yi da ngay lakk lépp lu nga xam ne graisse la nga liggéey nga xam ne di nga am vraiment yaram bu dagg un corps d'athlète bu rafet mais di funki ci ay lex jékki-jékki génn ci euh, quatre-vingt-dix kilos egg ci cent trente-cinq wala cent quarante kilos ci biir bu gàtt hmm. loolu ku ko gis xam ne am na leneen lu ci rax xale yi nag dañuy jël ay mbir hmm. am na lu ñuy wax créatine am na lu ñuy wax ñu euh, yeneen xeetu jumtuwaay yi nga xamante ni nii moom la ñuy jëfandikoo pour yokk seen doole pour yokk seen maas euh, fi mu toll nii nag euh, président Alioune Sarr ak ñi mu àndal jël nañ ci ay matuwaay nee nañ dinañ def ay contrôle inopiné mbir bu nga xamante ni bett nañ la euh, contrôlé la nga positif dinañu dinañ la aj amaa bu fekkee da ngaa bañ ku la contrôlé dinañu xotti sa licence rajo la ci corps bi mais daal li wér te wóor mooy mbirum dépage lu réel la guy gi nag poids bi nga xamante ni jël na ko moom moo xam lu mu ci jublu wa parce que nee na bëtam dafa jël ves dafa bëgg a egg ci VIP yi ñooñu nga xam ne bu ñu matee cent trente kilos moom mu ñooy mat cent quarante kilos xëy na loolu mooy joxe cent millions mais ndax cent millions yooyu euh, ëllëg dina la njëriñ loolu moom moo jar a laaj hmm. njëriñ loo fekkee hmm. njëriñ loo fekkee te ñu ko ciy def ñëpp bu ñu fi yàlla bàyyee dégg bàyyi ñu fi ba ren di déwén ba keroog ñuy raccroché ci seen wàllu carrière dinañu am ay problème santé parce que problème cardiaque war mën na ci am ay yeneen complication mën na ci am ndax même boo jël produit yooyu dafa war a am contrôle médical bu nga xam ne moo lay accompagner pour muscle yi consommer lu mel noonu mais xale yi lu leen neex lañ koy jëlee kon nag poids boobu mu jël xëy na moom la bëgg

mais est-ce que tey gëm nga ni yow génération bi mën nañu àgg ba at yooyu ay comme ay ñoom Moustapha gay gëm nga ni ñii mën nañu àgg ba at yooyu. mënuñu àgg ba at yooyu mënuñu bëre combat yu toll nii yu ñoo ñu bëre parce que boo xoolee ay ñoom Mor Fadam nga xool ay ñoom Moustapha Guèye ci seen carrière ay plus d'une quarantaine de combat la ñu bëree ñenn ñi sax xëy na boo xoolee euh, ci génération bi leen jiitu ay cent et quelques combats la ñuy wax wala ay deux cent combats ñu ci mel ni Mame Gorgui Gaye ñu ci mel ni Boy Bambara ah ak ñeneen ak ñeneen donc kon xale yi man yaakaar naa ni seen carrière mënta gudd longévité boobu mën nañu ko am 45 ans bi nga xam ne sax moom la PNG fixé ni ku ca egg da ngay euh, retraité hmm. bari na ci ñu nga xam ne du egg ci âge boobu euh, parce que li ñuy jëfandikoo moom mooy mujj fayu ci seen yaram ba du ñu mën a ba du ñu ba du ñu mën a def carrière hmm. bi ñooñu def Moustapha Gueye quatre vingt dix quatre vingt hmm. ci la daan ku ci bëgg daan te yaakaar naa ni mbir boo demee ba am quatre vingt dix loo bëgg a def ci sa yaram mun nga ko def jàmbaar boo demee ba ba denc quatre vingt dix voire quatre vingt quinze kilos nit yu cent kilos naturellement war nga ko mun a daan donc xale yi nañu njort ni mbir mi liggéey kese la mais du dem di jël ay produits hmm. yaram lu ca bokkul boo ko ci dugalee ëllëg mën na la jëlal ay problème hmm. Mhm. Moussa Dioum tey kenn xàmmeetu ko. na mu meloon xarañ ga mu amoon. Mhm. xeex ba mu mënoon bëri ga mu mënoon bi ñëpp naan Moussa Dioum nii ci xale yu nar a téye làmb ji la bokk. Mhm. keroog ba mu jëlee lu nga xam ne bokk ci moom jël poids bu nga xamante ni du poids bu mu maîtriser te la commencé dégringolé di daanu. donc yaakaar naa ne xale yu war ñu bàyyi xel bu baax. ci loolu nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo te xam ne du baaxul ci seen yaram baaxul ci seen carrière.

volonté wu jëflante ak moom. Hmm. ba sérénité boobu bu ko gardé wul mu nax ko daan ko parce que Zoss dafa nekk mbir bu intelligent. Hmm. donc sur le plan de la communication. Hmm. mi ngi gagné bataille communication bi mi ngi jéem a dox ci xelu ki nga xam ne mooy guy gi. pour merloo ko énervé loo ko mu ñëw bëgg ko euh, bëgg ko saax saaxee. mu jiwloo ko daan ko donc euh, yaakaar naa ne bu ñuy wax favori Zoss moom moo ëpp avantage mais tey boo ko doon xayma da ngay wax soixante quarante ci seen diggante ñoom ñaar parce que guy gi am na doole bu nga xamante ni ak poids bu nga xam ne bu ñëwee imposé waa ji ci wàllu euh, euh, ci wàllu doole ci wàllu physique mën na ko mën na ko indil problème donc mën nañu wax ni daal Zoss mooy favori mais attention guy gi euh, challenger bu dangereux la man jàpp naa ne bés boobu mën na ci créer euh, surprise bu dee sax surprise lañ koy tuddee parce que am na ñu bëri ñu jox ne guy gi mooy favori ci combat bi te Zoss nag il est dangereux boo nee boo nee du favori combat yooyu yi nga xam ne daan na fi yëpp dafa bett gaay bi sax ñëpp dañ ne woon Zoss du daan kon tey Zoss moom moo am tuuti avantage ci kaw guy gi donte guy gi jàpp naa ne bés boobu bu ñu moytuwul mën na daan Zoss ci lu gaaw voilà loolu mom mom moom loolu mom c'est c'est liñu liñu wax nan vraiment lamb lok tay moy wax tay mom lañ moom lañ fi dal de seen émission dox dajé malik c'est un lamb lok maintenant nek nekk légui football lok <laughs> wa xam nga rek euh, lo yàgg rek euh, yàgg ko top mën nga dem ba.

c'est pas la première fois athlète ñëw mm. de jub compétition am blessure mm. donc mu avons lu de poser problème mm. professionnalisme bi nga xam ni moom la wax ci yenn mbir lu def parce que athlète da nga war gérer sa corps planifier sa ay entraînement Mais ça, yoo jegee en ba ça yoo jegee combat bi nga gën a wàññi li ngay donc gagne à la veille d'un combat du lu nga xamante ni lu un professionnel parce que athlète doit entraîné ba de muscle dëgër ba nga chargé chargé say muscle ba yëpp muscle yëpp fees dell mouvement bu ndaw boo def mën na la indil gaañu gaañu tey gis ngeen euh, Zlatan Ibrahimovic mi ngi noonu blessé na parce que saison bi fi mu toll la boo xoolee Cristiano Ronaldo dafa blessé fi saison bi toll la Yaya Touré dafa blessé fi saison bi toll la donc après da ngay toll niveau bu nga xam ne da ngay fragile loo gën a jàpp gën a fragile kon entraînement yi nañ ko planifier parce que Gris fi mu gaañoo baaxul fi Tyson gaañoo woon digganteem ak Balla Gaye jaaduwul fii ëmb seen gaañoo woon diggante ak Modou Lo jaaduwul ba tax na CNG mi ngi xalaat nu mu ciy ay matuwaay képp ku demati ba ba sa combat def lu dul ay bés nga am ci blessure ñu am daan yi nga xamante ni dinañ na ko teg. mais boo donte aussi gis nañ fi Balla Gaye Balla Gaye numéro 2 ba ñëwoon na ba ci ba ci stade ba mu mu gaañu fa est que tey jii. Euh, Balla Gaye. Hmm. da mu jékki-jékki rek def mouvement bi puisque euh, cuisse bi daal